Buzz Sénégal Actu paiement de impôt le plaidé de Cheikh Bass Abdou Khadre jërë ngeen jëfati mbokk internet yéen ñu topp seen chaîne bii di Buzz Sénégal Actu dal leen ak jàmm yow mii doo ko dal suñu vidéo bi fekk na abonné ko ñu ngi lay ñaan nga abonné te activé cloche bi bu leen fàtte di like vidéo te di ko partagé Cheikh Bass Abdou Khadre mi nga xamante ni moo yor kàddu yoonu murit moom moomee nag doon yëkkati ay kàddu di wax ne daal képp koo xamante ni doomu senegal nga te nekk ci réew mi da ngaa fay li nga xamante ni moo di ay impôt loolee nag mu yëkkati woon ko ginnaaw samedi bi nga xamante moom la ñuy génne si kanam ki nga xamante ni mooy Serigne Gueye Diop mi nga xamante ni mooy ministre de industriel ak li nga xamante ni moo di commerce moom moomee nag ginnaaw bi nga xamante ni ñu ngi doon indigré benn centre commercial bu tudd li nga xamante moom la ñuy wax lekku fii ñu tuddee ko ki nga xamante ni moo di Ndiouga Kébé nekk sa dëkk bu sell boobu di Touba moom moomee di Cheikh Bass Abdou Khadir di wax ne daal képp ko xamante ni doomu Sénégal nga te yeewoo fii si réew mi li nga xamante ni daal moo la warloo ak réew mi danga ko di jëfandikoo ba mu mat muy li nga xamante ni moom la ñuy wax fayam impôt fayum impôt moomee nag ginnaaw bi mu fi indee coow fi nga xamante ni moo ci biir réew na sax lu jëm ci moom moomee na ci li nga xamante ni moo di ay kàddoom ginnaaw bi nga xamante ni tamit ñi ngi yor ñi xamante ni ñoo yor wàll ay camion nekk fa dëkk bu sell boobu di Touba seeti ko moom moomee nag xamal na leen lu ñu mel ñoom ñoo ne la daal doon wax ne sart yi nga xamante moom leen euh, li nga xamante moo di municipal bi teg daal dafa métti lool muy ay li nga xamante moom la ñuy wax ay maanaam ay juuteeg yu ni mel loolu daal dafa métti lool ba doon sàkk sax si ki nga xamante ni moo di kilifa gi mu wax daal mu wax ak ñi nga xamante ñoo yor wàllu mairie boobu daal ñu wàññi texte yu ni mel ñoo ñooñu tamit doon wax ne daal man nañoo joxe addiya joo xamante ji daal ju tàkku lay doon waaye sëriñ bi daal lam leen xamal mooy que ne daal addiya ak li nga xamante ni daal moo di maanaam euh, wàllum impôt daal dafa wuute lool ndax wàllum impôt daal dafa nekk loo xamante ni daal obligation la pour tous les citoyens ñoo ne xamante ñu si biir réew mi dañ ko war di joxe ba mu mat sëkk kon nag moom moomee nag di sëñ Bass Abdou Khader mu ngi woon ne ne daal bépp doomu Sénégal rawatina sax ñi nga xamante ni ñu ngi yeewoo foofu di dëkk bu sell boobu di Touba ñu wàccoog sart yi nga xamante ni ñoom lañ dégg wanto ak li nga xamante moo di seen réew